situation bu fi am et à laquelle j'espère que di nga am solution dañ nekk ci un déficit de cinq virgule six pour cent mhm. du PIB mhm. ñu ngi nekk ci soixante-sept pour cent président il a voulu faire sauter le plafond. 67 on est à 76. 60 67 pour cent. on est à 76 euh, je je m'en réfère aux chiffres. ba man loolu laa gëm. soo la loolu laa gis te maa ngi ragal ñu yegg en février. ñu dem euh, revue euh, FMI Banque mondiale ñooñu ne leen ah da ngeen di arrêter seen subvention yi pour diminuer le déficit da ngeen di arrêter la subvention des produits pétroliers. Mm-hmm. et de l'électricité ñu ngi dund les con les les conséquences euh, de cette de cet arrêt des des subventions les boobu yow nan nga koy régler aujourd'hui euh, di état mu ngi désengagé sur le secteur de l'électricité et des produits pétroliers euh, ñu ngi jéem a foraatu euh, cent milliards fii euh, pour euh, réduire le le déficit yow ci sa programme et c'est en bonne place euh, vous parlez vous dites qu'il faut s'endetter autrement qu'il faut faire un audit Euh, de la de la dette boo ñëwee 2024 nga confronté wu à cette situation là bonne solution ngay appliquer. waaw léegi nag maa ngi doo xam ne yaakaar nga ma ci bu baax <laughs> léegi gëm naa ne yaakaar nga ci parce que boo nee ma laaj noo koy réglé. noo koy réglé voilà. déjà déficit c'est pas déficit de cinq cinq pour cent. mooy différence bi entre li nga yaakaar ci sa budget ak li ngay dépensé. ce déficit là mun nga ko financer au fur et à mesure mun nga dem ci marché obligataire huit mois récupérer ay trucs pour fay sa salaire après nga récupérer ko fay nit ñi 6 pour cent ñu defar ko. 2025 ko war a résorber de. non non non du question résorber dañ lay wax rek ñoom dañuy am ay politique euh, ay pratiques yu ñuy wax da ngay réduire déficit l'idéal c'est d'être autour de 3 pour cent mais loolu c'est des choses qui se rattrapent tant que tu as une économie buy marché nga am douane impôt muy récupérer nga mën a agir bi loolu c'est pas le problème c'est l'endettement excessif moom mooy problème maintenant dafa am secteur yoo xam ne yi euh, en 2012 quand le régime de Macky Sall est daf ci def ay efforts yu bare mais efforts yu la yàq yàqeet moo tax gis nga boo amul politique publique bu baax bu constant da ngay def erreur moom bi mu ñëwee 2012 dafa ñëw fekk fii une situation de l'énergie qui était réglée hein provisoirement mais il y avait des de gros problèmes il y avait de groupes des montants extrêmement élevés on avait négligé le solaire et vraiment contexte bi c'était tellement difficile bi mu ñëwee il a dit mix énergétique daa di ubbi affaire solaire bi c'était bloqué man période boobu je travaille dans le privé j'ai amené ici un groupe qui a fait deux centrales solaires de 30 mégawatts ma te bu bokkal non non non pas du bokkal les deux autres bëgguma tudd ay tur les premières réunions se faisaient dans ma dem discuter ak président ma ne ko solaire bi il faut l'encourager ne mettez pas l'accent sur le prix le contrat d'achat énergie bi nga xam ne c'est obligatoire nga jaay Senelec il faut nga casser ko nga fexe ba mu am déficit bi 500 mégawatts solaire nga bàyyi nit ñi ñu dugal ko nga exonérer leen de toutes les taxes nga imposer les grandes entreprises ñu def effacement avec le solaire effacement mooy bu amee période de pointe nga bañ a utiliser réseau Sénélec comme ça nga libérer ko ñeneen ñi mun ko utiliser il était d'accord donc cette réforme qu'il fallait faire defuñu ko mais quand même avancé nañu indi nañu solaire mu am yeneen centrale affaire bi commencé ñu ñu def des efforts évidemment il y a eu les circonstances prix bi wàcc wàññeeku combustible bi et tout ñu avancé ñu commencé am stabilité ci wàllu électricité mais lan la mujj a def ñu dem di utiliser ay subventions au lieu nga jéem a ut sa budget nga renforcer sa capacité de production solaire nga renforcer les la substitution nga utiliser une économie d'énergie ñun bi ñu defee lamp yi lampe lampe yi lampe euh, à incandescence boo ko supprimer am nga équivalent soixante-dix mégawatts donc toutes ces mesures là et des petites mesures qu'il fallait faire pour ensemble redresser le système ba pare augmenter capacité production SAR à partir de l'hydrocarbure nga moderniser outil bi ba nga xam ne produit brut bu ñëw dina ko mën a transformer avec un taux de rendement correct di nga mën a fournir combustible bi nga xam ne moom ngay utiliser pour sa solaire cette politique n'a pas été bien suivie bi affaire bi commencé ba neex rek dañu laisser deux bi ñu laisser deux nag ils se sont contentés des bi ñu demee nag ba fin bi élection yi passé en décembre la commission de régulation daal di réunir ah yokk prix le président a fait un discours le 31 décembre il n'en il n'en a pas parlé le 1er janvier on l'a appliqué ñu dem ba ci biir ñu ne léegi dañu régler solution bi ñu indi benn solution bu baax a baax ñu ne dañu wut benn bateau ut financement bateau bi di produir du gaz liquéfié ñu envoyé ko ci machine u Senelec lu le coût va diminuer bu ko defee ñu mun a génn ci subvention yi bato ba ñëw yenn saa yi nga seen ko foofu kenn xamul bato ba fu mu mujj kenn xam te bato bu day noonu pour nga financer ko mu war la jox deux cent cinquante quatre mégawatts il faut au moins quatre vingt milliards kenn xamul kenn mënu la wax fu bato bu jóge donc yow amatoo gaz bi sa combustible bi cher na mënatoo produire pour jox nit ñi nga ne naa wut woyofal far woyofal bi nekk loofal nga def ay tranche boo defee tranche bi ne ko kii deux cent cinquante ba deux cent cinquante doo fay mais kii produire au deux cent cinquante moom moo koy jaay produit boulanger bi utiliser da koy jaay produit te da ciy def prix kon li mu li mu pertoon li nga ko mayoon da nga koy nangu li nga ko mayoon main droite nga koy nangu main gauche seen coroxaan moo yàgg. mais nan nga koy régler. non loolu laa lay expliquer moi sama solution c'est dans le livre. premièrement je prévois 2,5 pour cent du budget chaque année pour financer tous les dysfonctionnements 2,5 pour cent d'office pour financer tous les dysfonctionnements. Quels dysfonctionnements? La maintenance les machines qu'il faut renouveler. Hey. Eh, les Sénélec nag sous le régime de Macky Sall moom. moderniser nañu production bi. mais déglu ma moderniser nañu exploitation bi. mais man maa la njëkk a wax nañu capacité ma man maa la njëkk wax. aujourd'hui le problème qu'on a c'est le problème de la cherté. non non non non non non on a le la disponibilité. De et de la non non ñaari la. dama ne la et l'accès universel. non non non non non ça c'est autre chose. l'accès universel ça peut être financé par les télécoms et tout ça il y avait un service pour ça et avec l'équité et là il y a un problème de coût parce que euh, la. nga jël nga bañ a jël da ngay fay y a un chemin c'est un dossier que je je connais très bien très très bien dama ko liggéey alors nga def ko ci pour renforcer budget national budget national nga renforcer beneen bi nga def 500 mégawatts solaire exonération totale sur toute la ligne tu demandes aux entreprises de se mettre sur le solaire ñu def ay mutualisation nga xam ne dootuñu laal réseau Sénélec pendant pendant les heures de pointe déjà 500 mégawatts boo ko effacé dafa mel ni da nga yokk 500 mégawatts sa capacité de production nga def ko éolienne ils ont commencé des projets ils peuvent les continuer. aujourd'hui nooy nooy nooy nooy wàññee prix bi nag. non loolu laa la expliqué cest à wàññi prix si le produit est disponible la consommation maîtrisée le prix baisse su fekkee le produit ne pas disponible nit ñi dañu buuxante ci ci ci réseau bi ci réseau bi. et le coût va augmenter parce que lépp le li nga war a fay pour nga produire électricité il faut nga rattraper ko tu ne consommer à perte tu ne peux à perte loolu moo tax te comme nit ki il est captif il est obligé de consommer dafay obligé taal boo duggee sa néeg mu lëndëm da ngay taal yow doo calculer facture bi da ngay taal boo tëddee ci guddi taal sa ventilo wala sa clim da ngay taal